waaye wóor na ma ni jëfi cofeel la ni wut lamu or ak jaaro or ak ay fantaisie yooyu ngir wan la sunu mbégte ñoo bëgg kat saa su ne nga ñuy dimbali ñuy jéem di jëf sunu cofeel man de damay dégg a fois ñu naan murit day eh, ku la ne maa la gën a bëgg Sëriñ Tuubaa nga xeex ak moom. Mm. man de kon de ku ko wax daa si wul si man. man de ku ma ko wax ma la ndax xeeb sama bos. waaye leen de wóor na ma ni mooy taalube la ñu bëgg loolu rek nu itteel ab lu waay mën a attee leen rek laa ñaan yàlla bu nu wuteeg seen jëm yii di zaayir ak ci baatin saa yoo bëggee man wóor na ma ne ñun bëgg nañu te loolu rek am solo ay taalibe nañu bëgg nañu fi ñu toll nii man de wóor na ma ni supp nga lay daw lu nekk ngir walla sunu mbëgg def yi fi dof ak solo ba rafet ngir walla ni kat yàlla dimbale sabu nañu sant nañu sëñ bi te dimbali nañu fii nii ba fi njëkk jant nga xamante ne boobu boobu jafee woon na de boobu maa ngi fàttaliku ndox dama ko wut pompier waaye tey sama kër sama day ju tey da ji alors génneel photo yi bii génneel photo yi bee naka cant gi waaye yëf yaa ngi avancé mu wóor ma ni que ñoo ànd ak ku ma ta àndal xam-xam du ma ci dugg ay yaay daf may sonal sant nañu lu wér te wóor mooy ñun daal cofeel ji nga ñu féetale te mu neex ñu lool. wóoruñu deful lu dul bëgg seen jëmm ji bëgg seen jëmm ji bëgg seen jëmm ji te loolu rek lu war ndax kat sëriñ Béthio sagal nañu suturaal nañu teral nañu yokk nañu saa su ne mi ngi nii bëgguloo lu bët bëgg mooy kubtaalu bi mi ngi nii bëgguloo jëf ragal nañu dara lenn rek mooy wute yéen da dimbale leen saa su ne ngeen saxalu si taal bi fekk ni ñuy dund jiituñu dara suñu lendemain ñun xalaatuñu ndax suna aajo faju na ñii ma àndal la jàmbaar yii ñii ni ñii ñii ma si ah ay jàmbaar lañu ba def mooy mooy sunu borom sëñ bi mooy yàlla barke Sëriñ Tuuba yàlla nag mënu ko gëm naan kii mooy yàlla ba su defee ak danga doog weddi waat naan waaye lii kon gëmul li ngay wax Sëriñ Tuuba ku ko liggéeyal day faj sa aajo ku ko topp ñu topp la yow saa su ne xamal ni kat lépp moom te loolu rek a am solo moo ñu teral moo yéen moo ñu teral moo ñu teral moo ñu teral sigil moo ñu sigil moo ñu namal moo ñu namal moo ñu dimbali moo ñu dimbali lu am lu ne moom loolu di teew ba am na sëpp seere ko lu ñu am lu ne moom lu am lu ne moom saa su ne suñuy baatare mooma saa su ne suñuy baatare mooma këru cofeel mooma këru cofeel mooma mu dimbali ñu di ànd ak dëgg yi dëgg yi mooma mooma si yéen de sa bis bii ñu koy waaj ñun sonnuñu taayuñu di yàmbare wuñu bu subaa wóor na ma ni suñuy fii di waaja ndax kat dañoo dem ba yëf yi neex nu xam ne que ay jaam nañu te lii nii jaamu dañoo neex mooy jaamu kenn ki borom bi donte xamunoo ko waaye nañ ko wax ba keroog mu ñu dimbali ba yóbbu na si universitaire Saliou Samb maa ngi lay siyaare bu baax dafa ñëw bëgg saa su ne nii ngeen di solee leer yi te ñu koy te mu wóor ni ko bën lay ñoo ko fekkee moo ne ubbi naa la te dootoo tëjoo te saa su ne yaa ngi xel kon duñ la ñaanal nga yàgg fi saa yoo xel ngay jëriñu Boubacar Konaté universel nga xamante ni teyub Serigne Touba bi nii ñu koy indee waaye la ñaagal ngeen yàgg fi xam nga yàgg fi sax ak seen xam-xam bi du jaagee ni kat sunu mbaax waaye ñun lay jëriñ sant nañu soxna sant nañu waa Daaru Salaam yëpp ngir kat yaa am lu kenn amul waa Xelkom yi seen mii seen ñëw bii ñu ñëw tey barki Serigne Touba waa yi mbaax mii ñu ñëw ñu àndee cant gi moom damaa ngi seere ñëpp ni sunu sang bii loolu la ñuy wax ñun fii benn bopp la da koo bokk sunu nopp nopp nopp bu ma jege ah xam ni la wax sango sa taalube da nga war ne tuut naa si wax waaye jublu see sant sëriñ bi doo gëddi doo doo jànni doo wax ni mu ko naqari saa su ne yaa ngi dimbalee yaa ngi yërëmee yaa ngi suturaale te xam lu bëri ba noppi ne dem toog ni nga toogee ñi ñoo sant wóor nañu toog foofee mu toog toog fii mu toog di doxal fépp ba lu yëngu lu ne moom sant nañ ko loolu dimbali nañu su ma ko toppee ndax kat wax ji daa neex fàttali ko leen Seydina Moussa ba ka yàlla ne sa bant bi loo koy doyee mu naan ko lii yëg lii yëg lii yëg bu waxetu neex it ak sa borom noonu rek la demee kon nag du ma ko gudd ndax liggéey baa li moom toog naa ko xeeb naa ko yéem naa ko du ma ci dugg jëfi cofeel la jëfi cofeel nag moom jëfi cofeel rek ni ko mu dugg maa ngi sax di ñax ci barke sëñ Béthio sëñ Béthio yàgg fi ci ànd ñu topp si ginnaaw di ko liggéeyee faw di la jëf tuur yàlla nga fi yàgg ci ànd jëf rawatina sax fii ànd ak soxna su tedd si jëriñ universel Ablaye Mal xamal bu sonn lu taay jëriñ universel Ndeye Dièye jëriñ universel Masel May jëriñ Bakary jëriñ Ibulaay ah le poli ak jëriñ Touba bu la nekkal si loo mënul jëloo ñu gël luy jëf a sonn Yang mana hukum? Ini ni nak hukum sih. Hadir. Sunudine. Hadir. Sunudine. Hadir. Sunudine. Hadir. Sunudine. Sunudine. Sunudine. Sunudine. Sunudine. Sunudine. Sunudine.

ak waa Jafeel yi ak waa Jafeel ñëpp ñëw nañu ma fàtte soxna Mati soxna Mati bonbon soxna Mati Fall damaa ñëw toog démb mu indil ma mu guus waaye ne ma lii kat wóor ma ni di nga jëf jëfu Jafeel maa la ko indil ba mu ne walaay ma war a rafet loo xamante ma bàyyi kër ga ngir xaar sa délégation bi moom nii ma moo ko def soxna sant nañ bu baax ah moom day xanaa rek day ñëw jëfu jofel gi moom ah balaa bii ana addiye ak ay xeetu wax ay techniques yi yëpp ñëw nañ ci ñaar am na ñetti xeetu basin lu mu bleu baxa am na tamit rose xeetu saag bi tamit am na ñaari saagu RS ak benn saag citron d'or am nañu panier euh, projet ay sellama am nañ tamit ñaari vaisselle ay sukuk yu ànd ak ay yeex ak beneen sukuk ak salaay am na yu pot cuuraay waaw waaw lépp ci ay xeetu jëfi cofeer am na tamit bone bii ay carax fin waaw pañe ci suuf tamit waaw am na ay xeetu rouge à lèvres mat matifiant am na gel douche marseillais am na tools mat mooy lépp luy xeetu brush brush pour fond de teint brush pour rouge à lèvres fard à paupières fard à joues am na yit parfum oud am na tamit beneen gaamu parfum bu nekk ni waaw am na vernis à ah, ongles waaw moom daal ay jëfu safel la gars yi lu ne indi nañ rek ci seen stade waaw lii nag di ay mbubb yu ñawaloon sang bu teg bi waaw jëf na ay ñaari léger ñaari bassin waaw super super maximum petit bii bassin focus bi waaw ah, waaw waaw am na suñu waa bii grand boubou bu weex waaw ah, di sant bu baax a ah, baax ñaan rek ñu yàgg lool ñu yàgg leen ko defal lépp ñuy sàkku ci seen bëgg rek defal ci seen